yaay booy wala boog mbokki Sénégal la ñuy nuyu mbokki internet yi ñu suivre ci Leewtoo TV ki ñu toogal nag mooy suñu yaay Ndickou Thioune kii nag yaakaar naa ne su ngeen ko gisee kenn du ko présenté waa Sénégal mais nag dafa am tis wu ñu dal fan yi muy suñu papa Doudou Seck génn àddina ñu ko ñaanal yàlla ko te xare ko aljana te yaakaar naa yéen ñaar moom ah loo wax si moom rek nit war na ko mën a gëm parce que bari waaw am na loo xam ne sax duñu ci yegg ko ñun yow yow yaa koy waxal sa bopp yaay boo ñu ngi lay nuyu di la jaar di la jaale loolu waaw ginnaaw bu ñu yàlla julli Seydina Mouhamed doomu jàmbur maa lay fay di kat yi fi mu jógee fa mu jëm yal na ko gënal fi mu jógee ci kàttanu yàlla yal na ko yàlla fay xolam ci biir suuf tubarkalla macha allah nit ku baax la woon nit ku gaaw a jooy nit ku laabiir waaw tubarkalla macha allah man bi may jël 17 ans laa am. ngeen di xamante. 17 ans laa am muy aw sama yaay ci làmb booba man booba ma ñëw làmb dama doon jàng école mais bu sama yaay wooyee làmb ba pare day ànd moom ñëw kër ga ci la ma xame ci la ma ci lañ xamante man du sax sama mag la sama xarit la barke Yàlla macha maa ngi koy jaale ak lu làmb di ko jaawale ndey Faatu Samb mu aji ndey Samb mu aja Alaaji du Samb Njaay Maram de ban xujaar yaay Goy Njaay di ko jaale nag sama sama benn càmmeñ boo xam ne tubaarkalla macha allah Ndiogu Ndiaye avocat la chéri na fi faal Baye Mouhamed maa ngi koy jaale Petit Mbay mbañ waa lim gone yaa simi ci kong ma setama fay ngaay di ko jaale Petit Mbay surtout Petit Mbay daroon doon jékki-jékki yónnee na ay billets maak du sec ñu dem France mu tëggal ñu soirée tëggal ñu làmb barki dem moo njaar dëjëm bi moo moo moo moom Petit Mbay dañu waa leen goone yàlla na nga ko aw fan te dese barke bi ci barke Seydina Mouhamed su ma la su ma laajtoon suñu yaay ndiko cuun mook suñu papa Doudou Seck euh, ci euh, maanaam ban ban année ban année la seen maanaam ngeen sëy ngeen def seen mariage man booba 17 ans la am ni nga ko waxee sànq 17 ans waaw booba 17 ans la am rek mu ñëw kër ga di fekk sama yaay ba ñu xamante ne foofu yàlla tudd nag nu sëy am benn doom bu góor muy xaadim waaw mu mel ni kon li nga mën a wax si moom bëri na Dul Seck boo ñu doon wax kan la ban genre nit la. mais nit ku baax la nit ku am personnalité nit koo xam ne xeexu jàmbur rek moo ko mën a tax a am mer bëggul kuy néewal nit doole waaw nañ ko jàppale nag njàppale njabootam jàppale jabaram ak njabootam gi mu fi bàyyi ci kàttan yàlla waaw. maa ngi koy jaale Macky Sall Sall. tey su may da ngay ñu ñu maanaam niñ ko doon gisee si làmb. mu mel nit la win bu nga xam ne tamit ku ñime dëgg la maanaam dañ ko daan gis lu mu war a wax moom da koy wax léegi léegi. non nitu dëgg la woon nitu dëgg la woon nag tubaarkàlla macha allah nitu dëgg la woon lu mu ragal toog fay jooy dëgg la woon laa biir na xol bi rafet na tubaarkàlla macha allah nitu yàlla la woon daal. bi ngeen demee ba yàlla dogal seen sëy nekkatul est-ce que seen relation rek taxoon na. tey la gënoon a neex nag parce que yërëmante la woon nañu lu ma am may ko lu ma am may njabootam. waaye kii wàññiwu ci woon dara bu fekkee ci làmb ji ma woyee ma aw ma su ko su woyee ma aw ko waaw tubaarkàlla macha allah maa ngi koy ñaanal daal fu mu jëm yàlla ko gënal fi mu jógee. kon daan ngeen euh, doonte euh, li fi nekkoon comme euh, sëy bi nekkatu fi mais doon ngeen déggante di waxtaan. avant muy génn àddina déggante nañu woo na ma téléphone. ci ban jour noonu. woo na ma téléphone avant muy gaañ daal woo ma téléphone. waa di ma nuyu di ma laaj xaadim ak yooyu man ko xaadim ngi fi. barkaala macha allah may may ñaanal ni di ma ñaanal dëgg yàlla waaw. biñ la wooyee na la génn àddina loo yëg. ah mais yàlla moom bu soxlaa jàmm ñàkk am naa lu ma naqari nag torop torop torop mais yàlla bu soxlaa jàmm ñàkk waaw na ko yàlla yërëm te na suuf sedd ci kawam allah kilam gën ko addunaam rek ci barke Seydina Mohamed waaw parce que tudd na doom yonent bi ñaari yoon kon kooku ku yebu xel dal ci moom daal. yàlla ba ko ca jiitu ci bàmmeelam ci barke Seydina yàlla dogal mu génn bisu àjjuma àddina ci yor yor la génn àddina bisu àjjuma la génn àddina kon kooku tubaarkàlla macha allah daal man daal sama xel dal na daal waaw ah, tey njaboot gi mu fi bàyyi wax nga ne nañ leen jàppale njaboot googu itam yaakaar naa say doom lañu parce que ah, ni sa doom rek nga leen di jàppe yaakaar na maa leen jur moom sama doom ñoo bokk baay moo xaadim ñoo bokk baay aw ma naa ci ñoom yërmande moom mais na leen Sénégal jàppale waaw la na leen jàppale jabaram jàppale njabootam waaw. woy yi ngeen di woy am na xaalis. woy yi ñuy woy fii waa sant yàlla julli Seydina Muhammad rek sant rek sant rek waaw waaw. looy mujj wax waa Sénégal ak ñu lay suivre ci Leewtoo TV surtout maa ngi nuyu ñëpp di fans yi di nuyu axlu làmb di nuyu sama ñi ma jàppale Ndeye Fatou Samb aji Ndeye Samb Alaaji du Samb ak Ndiogu Ndiaye met Ndiogu Ndiaye avocat chéri na fi Fall Baye Mohamed waaw. kontaan nañu yaay booy. waaw jarul <laughs> ñu koy may kay may may ñu ko ci Leewtoo fii kër Pape Thialis Faye la du ma doo a bañ a way faw nga wayal ñu làmb. géew bi a teetooñ la jaboot du seetaan Thialis ñaari doom yi góor ngaan njaay man sama rom daan léegi ji gi joor naa. ana papa Thialis Faye lay woo dugu dugu waagaan xanjang waagaan tubaaye waagaan maa ngi lay jaale duudu yaay kat papa Thialis Faye du lay woo Leewtoo ñi doo seen roome. Ah, Samba yaa ne nga Birane Ndiaye man sa morom met Njoogu Njaay met Njoogu Njaay lay woo sama avocat bu ñaawul baa met Njoogu yaa ma jàppale ana chéri fi Njaay Baye Mouhamed li ni toppe doomi gar mi yaa ngi ci muñ nu mette yaa gore ba nu wek la Njaay pam Njoogu Njaay du lay oh. sama avocat ñi doo seen moroome sama journaliste bu ñaawul bee ana Babacar laay way ana Babacar laay woo li ni toppe doomi gar mi yaa ngi ci yow muñ lu metti lool mbokk yaayum Pape Salis Faye Babacar Sadiq man Babacar laay woo ana Babacar Ndulaay ñi doo seen moroome